di wax ne am nañ mbégte tey ñëw dajale journaliste yi may gërëm kilifa yi ñëw ànd ak man yëpp yu nekk ci SOGIP di gërëm secteur général bi di gërëm directeur yi ànd ak man yëpp ci SOGIP di gërëm chef de service yëpp di gërëm personnel SOGIP bi fi nekk yëpp ànd ak ñun depuis ñetti waxtu ba léegi ñu ngi ànd li tax nag ñu def ñuy def lii ñuy def mooy dañoo gis ni li nga xam ne moom mooy infrastructure yi wala buñ ko waxee taax yi nga xam ne moo nekk fii te dénk ko SOGIP nga xam ne sénégalais yi ñoo tax état bu Sénégal def ko fi ñu bëri ci sénégalais yi xamuñu leen sénégalais yu bëri xamuñu lan lañ fi mën a def parce que ku romb ci autoroute bi da defa ne Dakar Arena basket rek lañ fa mën a def da ngay defa ne stade Ablaye Wade football rek lañ fa mën a def dangay yaakaar ne sant des expositions foofu. moom ay sàll yu nu yu nu wax noonu am ñoo xam sax duñ ko séen ndaxte fi mu nekk xaw na déplacé wu tuuti ak autoroute bi waa léegi nag loolu moo tax bi ñu waxtaanee ñu ni comme lii ñu defar état Sénégal defar ko sénégalais yi ñoo tax mu defar ko kon fokk ñu ñëw wax sénégalais yi li fi am pour que parce que nit lu mu xamul munu ko utiliser. loolu moo tax ñu ñëw woo journalistes yi ñu leen di gërëm yéen ñëpp ci ni ngeen ñëwee ñuy gërëm patron de presse yëpp yi nga xam ñoo fi yónnee seen i journalistes. ngeen ñëw nii massivement pour ñëw couvrir li nga xam ne moo doon visite presse bi pour ñu wone infrastructure yi tey nag depuis ñetti waxtu ñu ngi ànd dem nañ fi nga xam ni moom fa la njëkk a doore muy marché bi nga xam ni ay magasin yoo xam ne lu mën a denc lu baree bari lépp lu baykatu Sénégal yi bay daanaka lu ci ëpp mën nañ koo denc magasin yi SOGIP moo ko moom garde gros porteur nga xam ay camion yu mag yi nga am ñoo gëna mag mënañ fa faa té lu mat téméri euh camion mën nañoo ndo té kenn du yakal sa morom dara ku nekk mën nga ñoo normal te do yakal sa morom dara wa ñaari infrastructure yoyu nga xamni li taxone mu jog moy Dakar ni mu bëree embouteillage camion yi di dugg euh, ci biir capital bi loolu réew yu bari bayinañ ko léegi dañuy wut fo xamni day jégué capital bi day jege centre ville bi ba nga xam ni camions yi fa la ñuy yem mais marché yi tamit nga xam ni fa la ñuy approvisionné foofu la ñuy yem bu ko defee commerçant yi nga xam ne ñoom ñoo am doole ñu ñëw loué magasin yi buñ ko loué andi seen i gros porteur bu dee am na baykat bu bay ca région yi sori bu ñu bayee ba pare ñu dugal ko ci camions yi andi ko ci magasin yooyu nga xam jam ñaajo lay yem bu ko defee bu ñu ko fa àndee détaillants yi nag jël seen oto yu ndaw ñëw jënd dugal seen i oto dem yóbbu Dakar bu ko defee noonu centre ville mel fu ci mel ni Sandiniéry dañuy dem ba day jeex tàkk oto yi man faa jaar normal parce que gros porteurs yi dootuñu yegg ci ville bi loolu moo doon objectif bi bu ko defee magasin yu mag yëpp ñëw installé wu fii dakaar am fi seen magasin ñëw fii à Diamniadio am fi seen magasin léegi nag ku ci nekk nag say boutique ya nekk ca dakaar ngay jël oto yu ndaw nag ñuy jóge fii di jaar ci autoroute di dem yóbbu leen ci sa boutique bu ko defee ni embouteillage yi méttee Dakar wàññeeku benn ñaareel ba mooy baykat yi doon bay di sànni seen soble ak seen euh, euh, pomme de terre surtout ñaar yooyu nga xam dañ ko doon tuur ak seen mango yooyu yëpp day jeex parce que dañuy am fu ñu ko denc ndaxte ay magasin la ñoo xam c'est des magasins réfrigérés mooy magasin yoo xam dina seral ci température bi nga ko bëgg ba yow la fa def du yàqu loolu nag dem nañ gis ko waaye amoon nay jafe-jafe yu ci am parce que ñun ñoo ko moom ñun Sojib parce que Sojib moo ko xalaat Sojib moo ko tabax Sojib tam moo ko jox SEMIC SEMIC war ko ko gérer. léegi nag SEMIC mi ngi amoon ay jafe-jafe ba sax man maa ngi woon ci procédure andi ay jaf euh, euh, jàppanteeg ñoom waaye comme dañu nommé directeur général bu bees mu ñëw seet si ma ñu waxtaan ñun ñu ngi koy gunge pour que loolu ngeen gis tey ñu fexe ba yéen ñëpp gis ngeen ni loolu bu doxee dëgg dëgg dëgg magasin yëpp fees ñu koy exploiter normalement dina am jeexital ci économie Sénégal léegi nag directeur général bi dañ ko accompagner jàppale ko. ba li nga xam ni moom la ñuy xaar ci moom ñu def ko parce que ñun tamit infrastructure yoo xam ne yaa ko yaa ko tabax suuf sañ sam nekk yaa ko moom fay nga ko ba mu mat DGPU ba noppi yow dërëm jotagoo ko fa loolu tamit dafa am jafe-jafe bu ci ne mais ñu ngi koy jàppale moom directeur général bi ñëw na ni nan ko jàppale te ñun SOGIP réunion nañ ak moom daañ ko jàppale tey tamit dem nañ fa wone mbir mi parce que directeur la boo xam si am na ambition te bëgg na wax dëgg yàlla def ay résultats ñun waa SOGIP dinañ ko jàppale ba mu def ay résultats incha allah bi ñu jógee foofu tamit gis ngeen ni dem nañ dakaar Arena dakaar Arena tamit gis ngeen la fa xew ñu bëri ñoo defe ne basket rek fa mun am bi leen ko wonee yéen ñëpp da ngeen a waaru gis ngeen ni fii kat lu ne mën nañ ko fee def ay saal yu mag la d'abord saal bu mag bi nga xam si fa la ñuy defee basket bi nga xam ne ci suuf lu ne mën nga ko faa def saal bi lu ne mën nga ko faa def loolu nga xam ne lu mat euh, fukki junni ak juróom nit ñoo fay ñoo fay ñoo fa mën a nekk ci espace boo xam ni benn jafe-jafe du fa am lu ne mën ko ko faa def loolu moo tax foofu tamit li ñu gis foofu won nañu ni euh, war nañ ko gën a won sénégalais pour ñu mën a ñëw jël Dakar Arena lu bari nag ma ngi fay xam ma ngi fay xew am na ministère yu bari yoo xam ña nga fay organiser ay séminaire parce que séminaire boo bëgg mën na fa am cérémonie graduation maanaam ñi am dañoo jàng ba école tëj ñu war leen jox seen i lijaasa am na école yu bari yu ci mel ni ay ISM ak ak eh, ay ñoom ñëpp def nañ fa ay événement yu mel ni yooyu nga xam day ñëw woo seen i ndongo di leen jox seen i lijaasa nga xam ne day ñëw ak ñoom ak seeni i waajur ba nga si foofu mooy espace bi nga moo leen gënal ministère éducation nationale tamit bi ñu leen rencontré nee naa leen yéen même seen concours général bi ngeen def mu ngeen ko defee Dakar Arena parce que Dakar Arena capacité bi mu am amul benn salle bu ko am fii Sénégal beneen bi mooy euh,

ma ñeenti junniy mètre carré kuñ ko wax sax da nga yéem ñeenti junniy mètre carré yoo xam ne dafay dañ dañ koo ubbi mu nekk óol boo xam si am na juróom-ñetti euh, mètre carré xóot-xóot loo xam loo ne mën nga ko faa def mën nga faa def concert mën nga faa def salon mën nga faa def euh, euh, façon xeetu cérémonie boo xalaat mën nga ko fa def donc foofu tamit am nay événement yu fa jotam yoo xam ne ay salon la salon de beauté salon de l'automobile euh, forum de l'eau etc. cetera loo xalaat mën am sax ñu les ko ci yi nga Jeux olympiques yi ma doon wax jeux yu bari yo xam fofu la am te Jeux olympiques du koy rek fa la kon la mm, euh, comme ni ma les jeux olympiques. sénégalais ñoko mom. Di nit nous, jëfëm da koy ñëw jël ne ku ñëw du lepp ngay utiliser li nga soxla ngay li nga soxla lañ lay loué parce que li ñu lay loué par mètre carré la mètre carré yi nga soxla rek nga ñëw jox la kon nag loolu wax dëgg yàlla même ñuy def seen i mariage surtout mariage VIP yi war nañoo mën ñëw defe ko foofu ku am euh, wax dëgg yàlla sa événement bu mën a doon buy mobiliser du monde war nga mën a ñëw ci centre des expositions amul salle bu ko bu toll noonu ci Sénégal genn wàll gi sax salle yu ndaw yi sax amuñu salle yu toll noonu fii Sénégal donc loolu moo tax nag foofu tamit ñu ngi sénégalais yi ñu ñëw utiliser ko parce que pour ñoom la te prix yi ñu fay appliqué et prix yomb la parce que mètre carré bi li ñu koy loué c' parce que ñun li nekk structure état moo tax ñu mën def mais bu doon privé moo yore centre des expos wala Dakar Arena wala stade Abdoulaye espace yi ñun ni ñu koy loué bu doon beneen privé moo comme on du louer non, quoi ku ko wet demal ci euh, hôtel yi nga euh, au niveau du Sénégal ñun ñoo gën a yombale loolu moo tax ma wax sànq ni xel mënta nangu. nga am lolu fofu yeb am ko fi ci stade bi stade bi tamit du football kese moko ko jog nga xamne ay salle bi ñu nekk rek nga xamne moy salle presse man nga fay def séminaire bo xamne da ngay am lu mat euh 244 personnes yo xam mënañ fe nek 244 personnes buñ koy wax ci wolof day nekk ñaari téméri nit ak ñen fuk ak ñent yo xamne mënañu mën nekk ci bir salle bi te ku ci nekk da nga am espace sa ak sa morom ah saal bu toll noonu nag yombu la am fii ci Sénégal te du saal bi gën a rëy parce que boo jëlee restaurant bi restaurant bi ñu tuddee restaurant VIP nga xam ne am na benn entreprise bu tudd Dangote boo xam moom du koo bëgg ci xolam moom bu amee team building bu muy def maanaam bëgg dajale njabootu liggéeykatam pour ñu waxtaane seen liggéey ñoom fii lañ koy defee bu amee seen arbre de Noël bu ñu amee seen fin d'année bu ñu amee activité boo am si dañoo bëgg a daje dañuy ñëw fii. ci stade bi nga xam ne mën na am lu